fiyaa imam mu mhm. dalal ñu imam Diop ñu koy ziare bu baax a baax ñu dugg nag ci àll bi tey fas yéene wut garab mhm. rawatina nag garabu dugóor mhm. sëñ Modou li ñuy jàkkaar jàkkaar lool moom mooy dugóor mooy garabu dugóor boo demee ci saalum ñoom dañuy wax duu góot waaw boo boo noonu la ñuy góot la ñuy wax <laughs> waaw wala ñu ne doo góot uh-huh. waaw ñun olof nag mooy wax dugóor uh-huh. mooy garab goo xamante ni dafa bëri ay barke yu ci nekk lool nga xamante ni moom particulièrement ci ci wàllu shayatin mhm. amul garab gu ko ci mën macha allah rawatina riixu shayatin ngelaw loolu ñuy wax ngelaw seytaane garab gii garab gu ci am doole la moom dugóor moom dugóor mi mhm. day wax ne boo ko doon naan nii fu mu fekk ngelaw moo waral souvent sax boo ko doon naan nii day yëngal sa yaram mhm. xob yi boo ko baxaloon di ko naan da ngay sa yaram day yëngatu parce que seytaane fi muy laxasu sa dafa bëri su ko boo ko naanee rek mu yëngal la mais ala kulli xaal da gis mu génn xajowul ak ngelaw seytaane moom la garab la goo xam ni tamit dafay dox ci wàllu wërsëg moom moom euh, dina dox ci wërsëg dina dox ci mbooloo bu dee ci wàllu wërsëg wax naa ko yaay maam sàng ma ne ko euh, dafa nekk garab goo xam ne dafay téye gis nga xobam yi sëñ Modou gis nga xob yi ci suuf nii gis nga ko mhm. ngelaw lu mu bëri bëri fi la leen bàyyi mhm. te li ma lay wax preuve baa ngi nii mi ngi àll baa ngi ngelaw nii mais gis nga ko xob yaa ngi nii ci suuf dëgg la benn xobam débordé wul. Mhm. moo waral ma ngi dañ ci daan def samp tamit samp. samp waaw ah. ko nekk ci bërëb bañ faa jóge dañ ci daan samp nit. macha nga xam ne kooku moom bu fa nekkee kenn mënul ko dara. Mhm. ba tey tamit ci wàllu wërsëg koo xam ne da nga ne mënu maa dagale dara lu ma yor day dem. Mhm. nga xam ne am na nit ñoo xam ne mënu luñ dañuy am wërsëg mais luñ yor mu dem. luñ yor mu léegi moom mi dañ ko daan dañ ko daan raxasoo. am na nu ñu koy def di ko raxasoo dañ naan la bu yàggee da too sax joxe da ngay nay te loolu <laughs> <laughs> tamit ci dagale wërsëg dagale wërsëg xam nga tamit li am solo mooy boo amee cent mille francs balaa muy jeex nga amaat yeneen cent mille dafa am solo mhm. am na ñoo xam ne bu ñu amee cent mille tant que lekkuñu ko mhm. duñ amaat yeneen cent mille dëgg moom na garab gi am na ci solo lool waaye nag tey li tax ñu gën a ñëw di ko wut tey dañoo soxla ci reen bi loo xamante ni mhm. incha allahu taala bu nu ku wutee ba liggéey ko ba noppi amul ku koy sangoo te doo am wërsëg. macha allah da ngay gis sax ne ñenn ñi neenañ bu ñu koy jëfandikoo mën nañ dem ba dañuy jiiñ dañuy tab diil fekk tab diil mm. la ma góor ga waxoon dong la moo teg diil la bu yàggee nga tëb daw. waaw <laughs> macha allah. Mm-hmm. su ko defee moo tax sëñ Modou mm-hmm. garab la goo xam ne waxtaan ci reenam yi am na njëriñ ci car yi am na njëriñ ci xob yi am na njëriñ loo waxtaan ba ci doomam bi rek. Mm-hmm. dafa am njëriñ. macha allah moo waral euh, am na ñu koy wooyee sax maanaam euh, pomme cannelle. pomme cannelle uh-huh. nga xam ne ba ci liggéeykatu latif yi dëgg-dëgg xam nañ ne cuuraay dëgg-dëgg latif mi ngi ci dugóor mi waaw boo bëggee jëriñu ci latif dëgg dëgg dëgg am na lu ñu ciy composé xobam yi ak yeneen yi mu àndal mu uh-huh. nekk cu mu nekk cuuraayam nga xam ne boo ko dee taal di zikar latif uh-huh. dafay gaaw macha allah garab la goo xam ne rawaxaane dañ koo jublu dañ koo bëgg moo waral nag tey jii ñu ñëw euh, fas yéene ci fas yéene ko wut fii ci dëkk bi cabinet secrétaire Touba boo gisee muy déplacé wu ak équipe am alxuraan daf ñu wa abdullah xata yatikal yaqin Mm-hmm. Ah? boo demee ci ci ahlu tasawuf dañuy wax ne ñetti étape mu am mooy al ilmul yaqin al aynul yaqin al xaqul yaqin fi ne ni ñu ngi ci xaqul yaqin ñun mm-hmm. parce que ki doon dégg sëñ Malick di wax ci dugóor al ilmul yaqin laa doon waxee rek xëy mm-hmm. xam moom xam na garab gi rek waaw waaw léegi aynul yaqin nag mooy gis naa ko ma nga ci wetu garab ga taxaw di wax léegi nag après ñu dem ci xaqul yaqin bu gaa gase gasee <laughs> ba buddi reen bi ah incha allah kenn dootul werante la kon moo tax tey ñu ne nañ teew te nii lañ ko fas yéene defee nag incha allahu taala fépp mhm. fu ñu jëm ànd ak équipe bi filmé ko mhm. wane ko indi ko ci cabinet bi incha allahu taala mhm. wax la niñ koy liggéey incha allah maa ngi fii tam bëgg a leeral ne gi ñaari façon la te gis nga ñaar wan benn baa ngi nii benn baa ngi nii benn baa ngi ko gis am na yeneen yu fi nekk ay façon maanaam yanaari la ah ak meer mhm. dugóoru meer ak dugóor yanaa rek uh-huh. benn bi xob yi dafa rëy benn bi xob yi dafa am cat benn bi xob yi dafa rond mhm. boo xool dañ ko wanee sax xam naa ci uh-huh. biir image waaw benn bi xob yi moo gën a rond benn bi mhm. xob yi moo ëpp cat yooyu ñoom lañ ñoo xamante ne ñoo bokk benn ndey bokk benn baay dañoo bokk ay bokkul ay giir rek uh-huh. waaye teewul nag comme ni ma koy waxal ci ci garab yi garab boo gis am na góor am na jigéen dëgg la léeg-léeg nga gis garab goo xam ne ba ne màgg doo gis benn doom fekk garab gi daa nekk góor moo tax ñu bëri ñu xam loolu dëgg la garab gu jigéen mooy jur garab gu góor du jur bu jigéen ñi mooy meññ daal voilà ñu jublu ci mbokk yi ndax xam ngeen ni ki ko mën ak ki koy jéem duñu benn Sajaratu Touba di cabinet boo xamante ni day yëngu ci wàllu médecine traditionnelle adresse bi benn la ña nga ca Kër Massar ca terminus 53 bi numéro téléphone ba di 77 539 19 04 77 539 19 04 da ngeen fa fekk Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal laa biir lool ci doomu aadama yi mbokk yi ndomba xalaas ngir yëkkati la doo dellu ginnaaw ndomba xalaas mi mi xëccoo boo dem ca kanam rek nga jëm dina raxas sa yaram ndax sangat ya muy àndal aar la boole ci ndomb sengoor bi doo accidenté doo lab si géej bâtiment du daanu sa kaw jaan du la maat jiit du la maat fital du la rey noot bi jigéen di jox góor du la rey yokk ci di nga am kaaraange yokku lool si sa wàllu wërsëg ndax xam ngeen kiis mi nga xamante ni mooy neexal xel rawatina xale bi nga xamante ni day jàng doo gaaw a fàtte dama ni ñaari junni ak ñaari ko nga am kiis bu ni men Bayra Njaay yéen commerçant yi laay waxal ñaari téere la benn bi ci njaay mi benn bi nga takk ko sa buntu place yéen commerçant en ligne benn bi nga def ko sa biir pochette ak benn saafara bi ngay diwoo bés bu nekk pommade bi nag pour tooke oreillon la wolof di ko wax seekeek wala neewi neewi loxo wala béy ku sa doom géex si sa ween ba mu def ay donju boo moytuwul mu andi la ay xeetu cancer diw ko ci incha allah dina deñ bayra tubaab waaw alxuraanul karim lañ ko liggéeyee nga nekk mbitim réew di jëflante ak tubaab yi ngeen juboo lool tubaab yi jublu ci yow wala ñu lay liggéey loo loo wax ñu ne waaw juróom-ñaari bul la juróom-ñaari fan nga koy sangoo saabu bii dina raxas sa yaram teggil la bépp jafe-jafe waaye tamit bayra moom di nga ko am lool rax si dolli tin ba ngay am kon mbokk yi cabinet Sajaratu Touba ña nga ca Kër Massar ci terminus 53 bi numéro téléphone bi di 77 539 19 04 77 539 19 19 04 Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal laabir lool ci jaamu yàlla yi di leen faxaar xaar yokku am ndam xéewale lool kon mbok mbokk yi kabine sajaratu Touba daw leen gaaw waaye yéexati ñàkk la daal ngir sa aajo faju